Euh, waaw waaye mbir yi nag maanaam daal ba léegi rek maa nga fa ma toogoon rek maanaam dal mbir yi daal nañ ko tasawur wax gëstu na mu doone ñu atte ko ca kaw loola te yemale ko fa euh, boo gisee ñu naan a aadaat la ñu tëdd ay ay ay ay karaamaak ay nangam ak yu mel noonu yu yëpp mënuma fa bi man bu ma nit muy naaw ci jaww ma toog yow ba nga ñëw ne fër kaw naaw dellusiwaat da ngaa da ngaa naaw dellusiwaat rek. da nga naw de si waat rek bu defee ñu ñu maanaam say mbir lay xool fi nga ko tënk tënk ko ci alxuraan sunna rek man man dara lu may jombal bu doon jombal wala ci wàllu googu léegi nag euh, li ma gis nga wax ko léegi ne ne léegi masalan tey ci ci ci bi ngay leeral ne wéri di dafa am jàngoor ak nangam nangam saafara yi mu alxuraan ak sunna waa sëñ bi loolu kenn ñeme ne ci wute yow kon ku ku ci wute yow ku ne lislaamam la ñuy lijjanti di maanaam loolu kenn waxu ko moom. léegi kay kayfiya bi kayf ixtil al ixtilaafil kayf kayf bi moom la ñu wutee yonent bi mu jàngale woon sallallahu alayhi wa na ndax yàlla na ko yàlla ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayyana linnaasi ma nuzzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun sadaqallahu alazim kon luñ bëgg a xam yonent bi moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam ci njàngalem yonent bi ci la saxaaba jëm jële taabiyoon jël ci saxaaba yi taabiyoon taabiyoon jël ci taabiyoon ya noonu lay toftaloo di wéy toujours ñëw ngay jël di ko jàllale waaye dafa am loo xam ne euh, daa mat a bàyyi wala xel maanaam li war a tasawuf ci boppam ak sofiye sofiyatu ak salafiyatu wuyu jooyu yi jaar seen diggante dañoo bëgg xam ba xam su dëgg dëgg dëgg su su ma sañoon du débat bi day tarkiis ci kayf bi kayf bi ci la ci yonent bi moom lu mu jàngale fa samaan wataa waaw lu mu wax lu ne fa samaan wataa dañoo xam ne débat sax boo bëggee mu fi mu far ferankalaayu moom boo yàlla neen yonent bi nee na man duma cee ñemee teg baat waaye li may wax kay mooy ci kayfu bi ci détail ci détail yi ak niñ war a dégg mbir ma ci la wuute gi amee ixtilaafil mafahim kii dégg ko ni kii dégg ko ni bu doon loolu kay ci tafasir yi ixtimaal yi am ci maanaay tafsir yi du am cun ci déggéen yi lañ wax kon wéradi yi moom wéradi gi moom soo saafara si dellu ci alxuraan sunna ñëpp bokk nañ ci dëpp waaye nan lañ ciy delloo nag ci la juwe gi am ne nañ ci delloo ci la jiwe gi amee kii jël lii misa ko li kii jël ko bisa ko li léegi nag suufi yi ci boppam daa am ay masaadir ay ay masaadiram am ay madaarisam salaf yi am ay ay masaadiram am ay madaarisam kenn ku ne am ay madaaris madaaris yu ñu am nag euh, moo indi yii yëpp waaw bu ko defee ne madaaris takwin yi bokkunu loolu moom laa doon ñu sofaat ci li nga wax kon pour wane ne confirmer na bu baax li nga wax waaye nag wuute gi nekkul foofu wuute gi fi mu nekk mooy ci kayfu bi kayfu bu ci lañ wutee kayfu bi nag bu fekkee ne kii daa daa jël ci nasu zahir bi kii am lu mu dégg ci nas bi nga ne ko ci nasu zahir bi donc la war a jàpp li nga dégg ci nas bi valable loolu mooy faral di andi mbir loolu mat a bay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Abdoul Ahad eh, alquran ak sunna mooy saafara si loolu dafa leer eh, benn jullit waru cee am lu muy sikki sàkka <coughs> mu des nag wuute gi ngay wax dafa am wuute yoo xam ne lislaam da koo nanguwul am na yoo xam ne mëne su caa wuute sutia wute caa ku ko jéem a layal ndax léegi alquran ak sunna booy dégg alquran ak xadis da ko koo war a yemale ci déggiinu saxaaba ya ridwanullahi alayhim ak taabii ak taabiin yi te déggiinu saxaaba ya sax ca la ñu koy tënk ndax taabiin yi ñañ cay topp ñañ cay topp mooy ñi nga xam ne dañ buñ koy wax mooy ndongoy saxaaba yi nga xam ne dañoo jëlee xam-xam boobu ci saxaaba yi waaye saxaaba yi moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo nu delluloo ci seen sunna aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa irrachidin almahdiyin kon loolu moo waral group bi buñ lay laaj yow dañ lay laaj léegi liñ jàppe ak juuyoo ci déggin wi léegi ñu indi layam ci biir alquran ak sunna te tënk ko ci na saxaaba ya dégge woon loola nag bokk na ci mm, lii ñu doon wax léegi ci affaire u waaw biñ la ci laajee mën naa am yow indiwoo xadis indiwoo aaye buy wane ne loolu am na amee ma ne su ko layal ci alquran wala ci xadis yaakaar naa ne it fi mu ne boo demoon Makka wala nga dem Madina doo gis fenn am mbooloo mu dajaloo ñu ne la mbooloo mii kat ñooy taalibey Aboubacar wala ñooy taalibey Umar wala ñooy taalibey Ousmane loolu moom yaakaar naa ne euh, boo ko doon gëstu doo ko gis doo ko gis kon li ëpp solo mooy mën xëj lañ ñu topploo yonente bi sallallahu alayhi wasallam nañ topp ngir mi mu jaaroon te mooy alquran ak sunna nan ko roy ci loolu yam ca amma nag bu fekkee juuyoo gi dañ ne dafa buntu la bu ubbeeku boo xam ne lu neex waaye dégg ci biir alquran ah loolu nag bu boobaa dana kiimaane lool nag ndax nag gisees na li ñuy wax taxrif alquran da koo indi alladina yuxarrifuuna alkalima an mawaadihi am na ñoo xam ne dañuy def lu mel noonu kon buñ dee wax ci Euh, yow bu fekkee ci say mbir ci alquran ak sunna nga ko tënk loolu yow taxoo ñuy wax waaye dañuy seet ci feebar yi nga xam ne mi ngi dund ci suñ société tañ ne ci diine ji la bokk ñu bëgg ay leeral yoo xam ne day jóge ci alquran ak sunna kon foofu la coow li ne waaye juyoo moom bu ñu demee ci école salafiya ak école tasawuf ña nga tàmbalee ci juyoo ca yàlla mooy ni ñu gisee yàlla ndax nee naa la léegi li ñuy wax euh, wahdatul wujud am nañ mutasawwifoon yoo xam ne loolu mooy seen pas-pas mooy yàlla amut li am lépp moo tudd yàlla yow daggit nga ci yàlla tabax bi daggit la ci yàlla li am lépp daal boo ko boolee moo tudd yàlla am na ñoo xam ne pas-pas boobu xam ne dañuy wax li ñoo alxulul mooy yàlla day dem ba ne caraax ci nit nekk ci biiram waaye ba mu nekkee ci biiram day mel ne bekk suukar woo jël dugal ko ci ndox mi ci saa si da koy séen mu ne ca biir ndox ma boo ko bëggee seppi man koo seppi loolu mooy xulul mu dem ba mu yàgg suukar sa bu yàggee ci biir day dem ba mu yàgg mu def li ñuy wax ittihaad mu bennoo ak moom nga xam ne euh, segg ko dindi ko jële ko ci biir duutu mën nekk loolu pas-pas la yoo xam ne ay déggiinam nag fan ci alquran ak fan ci hadis la ñuy soxla ay layam xam nga juuyoo dafa xóot bu dee ci wàllu li nga doon wax mën hëj mën hëju ci wàll ci diggante seen diggante euh, seen digg borom bi tabaraka wa taala ci gisin loolu benn la beneen bi ci topp mooy buñ demoon ci al asma wa sifaat ashaira yi juróom-ñaari tur la ñuy indi jural ci yeneen juróom-ñaar ak juróom-benn yi ñuy tuddee ay ay ay ay ay salbiyaat bu ko defee boo ko boolee mu doon ñaar fukki melo kese bu dee ahlu na ñoom tur yàlla yëpp dañ koy dugal ci ci ci buntu boobu dañ koy dugal ci buntu boobu te tur yàlla yi daa bari am na benn xadis sax boo xam ne tudd na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent bu dee ci alquran li ci ñëw ci ay tur yàlla ëpp na téeméer ak ñeent fukk yu tegal acture yi nga xam ne nag ko te nun yooyu yëpp dañ koy saxalal yàlla yooyu yëpp dañ cey wéetal yàlla jàpp ne yàlla rek mooy razaq yàlla rek mooy mooy naafi mooy daar nga xam ne dañuy jàpp ne yooyu yàlla rek moo ko yor moo tax bu boobaa yooyu bu dajee ñu jox ko yàlla mooy waral suñuy xol ci yàlla lañ koy wékk moom kese la ñuy jaamu waaye su fekkente ne nag léegi am na ci yuñ dagg wàcc ba boolewuñ ko ci pas-pas boolewuñ ko ci tawxiid loolu day doon mbir mu jafe kon nag euh, Cheikh Abdoul Ahad yooyu maa ngi xaar say tontu ci wàll googu ci ay lay yu leer comme ni ñu defo won léegi ci walu jébul gi ñu defé ko nonu ci walu wahdatul wujud ak hulul ak ittihad lolu ma ngi la ci laaj ba xam yow man nga ko amal ay déggin ci alquran yu leer yo xamne ku mufassirun yi dañ cee wax mu leer bu dé ci hadith nga indi ay hadith yu leer yu cay wax ma ngi lay xaar. alaykum wa rahmatullah Cheikh abdul Ahad way bu ma rélo na yow lo nga wax euh bu ma rélo xam nga dama dama lay laaj rek dama lay laaj ndax mbirum diine la. diine liñ ne lii ci la bokk moom même yow boo jàppee ne bokku ci am na ñu bari ñoo xam ne dañoo jàpp ne lii ci diine ci la bokk kon day laaj ñu seet ndax mën nañoo layal loolu ci biir diine ji mooy indil ko dalil ci alquran wala ci sunna loolu rek mooy laaj bi léegi nag ay inkaarak ay sëriñ seek ay nangam yooyu ngay lim bu yooyu moom taxu ñoo jóg liñ tax a jóg rek mooy leeral comme yii may laaj nii rek nga indil ma ci ay leeral ndax wahdatul wujud dégg nga ko xam nga ko boo liiree seen yi gis nga ko ci bii bii rek maa ngi liir benn téere mu tasawuf mu dem ba wax ne képp ku jàng tawxiid te jàngoo ko ci royoo ci iblis ab zindiq nga ab saay-saay nga ndax nee na iblis moo xam dara darajey sujjóot ba tax di ko ko yàlla def loo ci aadama dafa làng mu ne kooku moo am tawxiid dëgg waaye moo gën a xam malaayika yi tawxiid ndax malaayika yi ñoom ba leen yàlla ne sujjóot leen ci aadama dañoo daal di sujjóot yooyu laa bëgg ay yooyu lay laaj ndax man ci tasawuf laa doon dund doonu gëstukat léegi nag yooyu mën naa am yow xëy na comme yaa ma ci mujj nga man ma nga tane ma ci ci indil yooyu loolu ay lay loolu laay laaj. Alioune Badara. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bul jàpp mukk ne ñi ñëw seen déggin yu man déggin wu ñuy for la xalaatuñ ko seen déggin wu ñu ngi koy balluloo ci dégginu asalafu saalih ci misal li ma la bëgg wax moy an wa tafsir yi donte tafsir bil ma'sur moy bi gëna muccu xam nañ ko waye li ma bëgg wax fofu moy bu japp ne dañu te degenu dégginu ci nañ koy degi ñom dañu beru ne le an degenu nus wa waan degenu yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet ci la saxaaba yi jangale ca la ñuy déggee wax loolu ñu bayyi ci xel bu baax baax bu muy ben ñaarel ba moy bariwaana lu ñuy yëkkati di ko wax di ko tuumaal ahlu tasawuf te lépp makdubun alayhim dañ leen ko naral du dëgg euh, ci misaal rek buñ demee ci fatawa ibnu taymiya ci fatwa xas bi nga xam ne dafa da ci wax ci sofiya euh, moom la muy wax foofa boo ko dee xool day mel ni saafara dëgg la ndax dafa séddale kuréel def ko ñetti pàcc kuréel boo xam dañoo teengal ci weddi tasawuf ak kuréel boo xam dañoo teengal ba yëkkit suyux yi teg leen ci dara joxan dafa doy waar buah xeba dan nan kila tarafay hadaini damimun manam ñom ñan ñi ñëpp wàcc nañ yoon wasab wa sawab wa sawab nak lam cey tek ñaare boko ko xol safara su nit su suñ mënta ñak lay doon ndax da ci wax wax ju am solo wa bittaar yi li ma bëgg wax moy wahdatul wujud bu nga xam ne day mel ko ci sa bir wax nga diko ko bari na kuñ koy tumal ko weddi am na ndax yaakaar ibnu arab lay doon timna bi suma jumut day mel am fuñ binne wahdatul wujud wahdatul wujud kufrun wa ilhad wa man qaala bil xulul fa qawluhu ma'lul loolu yàgg naa su wax si wala ci ñu ko askan ci moom suñu waxee loolu nag kon li ëpp ci lu ñuy wax ci ñoom boo dee xool duñ ñu askanale leen dañoo waaye nekkul loo xam ne lu sax la euh, wa bittaali kon ma delluwaat ci la ma waxoon ne bul jàpp ñoom dañuy yor seen déggeenu bopp ba yi nan an déggee ni saxaaba an dégg nag lu ci mën di xew seen dégg ñi ngi koy ballooloo ci dégg ñu asalafu saalih loolu laa doon gën a jubbante ci loolu nga doon wax noonu jëf waaw ñu man de ñaari illa rek moo tee ma mën continuer le ben timis jangi ni dugg ci mo wara waji bi ci teguwaat moy lan dafa am émission bu ma war a def léegi waaw waaye moom lii mom luma yittel yitteel la moom lu ma yitteel lool la waaw macha allah lu yitt bu du tayit manam di guddi gi wala ci bir guddi gi rek fuñ fuñ fi jekkee rek man jeexis na ma insha allah. assalamu alaykum Cheikh Abdoul Ahad waye Ibnu Arabi yaakaar ne nak xana waxam ji nga xamné mom la wax. te ibnu taymiya andi ko ginnaaw yaa ngi dellu ci waxi ibnu taymiya war ngaa bàyyi xel ci loolu bi ne al abdu rabbun war rabbu abdun yaa layta shi'ri manil mukallaf loolu yaakaar naa ne gis nga ko mu teg ca bayit boom ci teg in qulta abdun fa daaka rabbun in qulta rabbun anna yukallaf loolu ibnu arabi moo ko wax boo ñëwee ci fatawa bu ibnu taymiya da nga gis ibnu taymiya indi wax jooju di ko radd kon loolu lu mat a leeral la pas-pasu wahdatul wujud daal euh, euh, weddi ko sax ci euh, nii loolu dafa yéeme ndax moom dafa sax ci téere yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ay tariqa suufi lañ yor ay mutasawifuun ñoom ñoo ko bind ci seeni téere yaakaar naa ne boo bu soxlaa ñu di la jox ay téere tuuri téere kepaas dana ko jar waaye yaakaar naa comme gëstukat nga gëstukat laa li ma lay junj doy doy na mën nañoo continuer bu la neexee ñu continuer ci lii wax wahdatul wujud bi nga xam ne dafa sax ci ñoom nga naan ñi ngi koy miim tam sax ñu wax ko ci téere yu baree bari loolu loolu ba tey maa ngi xaar tontu. waaw man nag Aliou xam nga maa jaxal daal est-ce que digg nga baax liir nga lee ñu weesu léegi. lu tax nga tarkiis ci yi nga xam ne moom ay wax la yoo xam ne maanaam kenn waru ci sukkandiku sëñ bi am na yoo xam ne ay ay ay ay ay maanaam daanaka boo ko dee xoolee ñaar ñaaree waral wax yu mel noonu génn benn sataxa sataxa buñ ko waxee mooy xeeti jëlli leer yu mel noonu wala boog ko xamul fu mu nekk wala boog koo xam ne ne xaaba anu aqluhu mën naa nekk yëpp mën naa nekk su boobaa nag wala li ñu tuddee ay ay ay ay la ñu wax lu mel noonu nag léegi. lu sukkandiku yoo xam jàppal li ñu rek ci gàttal muy muy xam ne moom. yàlla daal sëñ bi <laughs> maanaam yàlla yàlla la jàpp la waaw loolu daal man la la la jàpp waaye yii ñuy wax yëpp boo ko dee xool rek lu jàpp ci ñoom dañ leen ko waxal bala boobu bañ ko waxee nekkuñ ko fi ñu ko nekk fii xaalatil rëy booba ndax day faral di am waaw waaye ku ca xiqi weddi la nga soxalam weddi la nga bu fekkee wax nga loo xam ne xaj ne kii da nga koy da nga koy weddiwaat wax datul wax nañ lañ ca wax nee nañ la kenn waru ko fas jàpp dañ ko dañ ko dàq xanaa gisoo li ma bind ci kaw lu tax nga sigi ñu ci ne saxal ko ci ñoom rek lu dañ ko war a lijjanti ci ay suyox ba jàpp loola naa la ko waaye may damay sukkandiku ay suyox ba andi lii nangul ma ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam nga Cheikh Abdoul Ahad loolu gis nañ ko waaye ginnaaw ñaar yëpp dafa am ci ñi nga xam ne dañoo topp tasawuf maanaam ñii gëm nañ ne lee amut waxdatul wujud taxawut. ñii gëm ne wahdatul wujud moo am loolu moo tax liñ mënta layal li nga xam ne man gisumay layam ci diine loolu laa lay laaj waaye leneen li nga xam ne leer na kay ndax loolu moom leneen li ci des moom leer na xam nga ne man foofu laa ne yow moom ni nga waxee foofu nga nekk am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne foofu lañ nekk kon loolu liñ soxla mooy yow nga leeral li nga xam ne mooy lëj mi nga xam ne moo nu jaaxal nun lëj mi nu jaaxal dem banaan diw yàlla la diw yàlla la dem ba naan diw a gën ci man yàlla te son bi jaar na ci groupe bii ñu dégg ko dégg nga dem banaan la diw wax moo gën alquran yooyu yëpp euh, day dellu rek ci tasawuf dégg nga léegi loolu lan la la lan bëgg xam maanaam ñiy wax loolu te dégguñu inkaar bi jóge ci ku mel ne yow wala ñeneen wala boog dégguma ko man lu mel noonu moo ma jaaxal daal léegi moo tax nag ñu bëgg a xam ba xam lu tax noppi giñ ci noppi nga xam ne bu ci amee ñuy wax mooy ñi ñi ñi nga xam ne ñooy la ñuy wooye ay salafit ñoom ñoo ciy wax di wax ne lii du noonu te buñ nee du noonu ñu ne yéen da ngeen a seet lu ñaaw ci tasawuf rek ngeen di ko wax bàyyi li ci des léegi nag moo taxoon ñu bëggoon a xam léegi lu tax lu tax affaire bii daal ceetaan mi maanaam ku mel ne yow nga xam ne yow nee nga sunna ci la ñëpp war a dox déggin yi moo wuute moo tax ñu soxla dégginu wahdatul wujud maanaam nuñ koy layale ci alquran ak nuñ koy layale ci sunna loolu rek lañuy lañ lañ lay laaj waaye laajuñu ko ko pour ne ñun dañoo gis ay mutasawifoon ñu wax leneen lu bokkut ak loolu muy lu baax nu noppi ci déedéet du loolu lii def noo jaaxal boo ñëwee ci nit di ko laaj la nga amuk jaaxle ca ngay laaj léegi nun lii moonu jaaxal ñu di ko laaj ndax damay jàpp ne am na ci wax yoo xam ne bu ko nit waxee te ne day askanoo ci sab tariqa wala mu mu ne moom sab taalibi la damay jartu ne fa kàddoom yegg sa kàddu war na faa yegg wane ne kii li mu wax waru koo wax waaye ginnaaw dañ cay noppi nag te bu ñu waxee lenn loo xam ne luy nuroog luy euh, jam sa tariqa la wala muy laal sa daraja mu jaral la wax loolu mooy mooy laaj bi moo tax nu bëgg jàpp ne kon ginnaaw nee nga ci alquran ak sunna ngeen nekk moo tax ñu bëggoon a xam déggin woowu ndax loolu dafa walaabal ci diini ji wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dama ne loolu nangul naa la ko léegi nag lële laay laaj lële laay laaj ne lii moom nangul naa la ko man lépp lu waay wax ak ku ko mën a wax ak koo mën a doon bu joyoo ak alquran wala sunna ju tege ci dégginu saxaaba ya man loolu du ko jël du ko mas a jël loolu man mooy sama loolu leer na ci man léegi nag lii moom day laaj bu ma la doon laaj waaye man soo ma fekk see ci ne loolu kenn waru koo fas loolu d'accord naa ci kenn waru koo fas léegi kon ñi koy fas laa jàppoon ne comme yaa ngi gëstu ci tariqa suufi yi yaa ngi gëstu tasawuf baaxis nga moo tax ma jàpp na ne yow xay na nit ñi niñ ci amee aw fit ñeme ci ndax loolu dañ koo amal lay ci alquran wala ci sunna loolu mooy laaj bi loolu rek laa doon laaj waaye jubluwuma ci sigiñu sigiñu wu ma laaj bi rek laa soxla ñu tontu ko. ah loo gisul layam ci diine may may gisuma layam ci de yëpp loolu kay gisoo layam ci diine man mii gisuma layam ci diine moo tax jëm ma ko layal di. dafa cee gis na lu koy wax ma loolu koy jëmm moom man kay yi may défendre fii yëpp yuñ nangu ci suñ la doon waaye du ma dugg ci loo xam ne xawma ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kontaan naa ci yow lépp loo xamul ci diine nga taxaw ne loolu man du ma ko défendre loolu man d'accord naa ci ak yow kon loolu rek laa doon laaj incha allah euh, mu des nag maa ngi laaj ba tey li ñuy wax alxulool moom it pas la bu ñuy wax mooy ne yàlla mën naa wàcc ci biir jëmmi nit ki def fab diir bu ko soob si ay ànd ak moom nga xam ne kenn duutu leen mën a tàqale loolu it ba tey dama ko gis ci téere yi tasawuf yi ma bëggoon laa laaj ba xam yow loolu sa gis-gis ma di ko ca laaj euh, bu fekkee da nga may tontu li nga tontu woon ci wahdatul wujud ma daal di xam su fekkee leneen ngay tontu it ma xam jërëjëf. benn ñaari ba ma may julli ci timis ñetteel ba mooy bul bul képp mbir mi foo xam ne moom mu indi cool yi nga tarkis ci rek nag doo nangoo jóge foofa euh, te loolu wax naa la lu leer ne la man jëm ma ndax man yooyu dama ci àndul ma noppi waaw yi ma ànd kay moom boo ci duggadu te bëgg ca kii moom ma ma and la ma ca xam mais tasawuf daal doo xool ya doon ay sikkam nga cay sukkandiku tax ngay dal ci kaw suuf yi loolu laa mënta ànd ba mukk te du ma ci ànd ba mukk daal wasalaamaaleykum ginnaaw bu ñu jullee tamit sama nopp incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon nag nga bàyyi xel ci ne nun buñ dee dàq wahdatul wujud da dàquñu ko ngir ne tariqa sangam loolu lañ fas wala tariqa sàngam wala léegi bu ñu waxee loolu dañoo bëgg jubloo attaqué tariqa sàngam déedéet lépp lu waay indi ci diine ji te ne ci la bokk rek dañ lay laaj ba xam loolu am na cislaay ci alquran wala euh, ci sunna wala amu ko loolu rek la waaye nag euh, du leneen jërëjëf kontaan nañ nag bu baax ci li nga waxee xam naa timis jege na incha allah suñ julli jee timis ba ñëw danañ la fi la ay ojo incha allah boo ñëwee boo dégloo tontu incha allah ñuy tontonte ci dal ak yàqi dëgg rek fexe ba euh, ni mu lëjee mbir yi nim jaxasoo ñu fexe ba leeral loo xam ne euh, mooy liñ war a leeral li nga wax léegi li nga indi léegi euh, lu wér la xulul kenn waru ko wax wax nga ko wax nga tontu nga ma léegi ci mbind mi te xam naa ne loolu moom nga doon tontu ndax moom laa séentu woon ndax bindoon nga ko avant waaye comme groupe bi groupe bu audio la dañoo war di wax ci wolof yu leer naa ñi ñuy dégg di xam moo waral ma bëggoon nga wax jàllale ko ci sa jaarale ko ci sa kàddu euh, nit ñi dégg. tey waaw ginnaaw bu ma euh, ñaar suñu borom nangul ñun ñëpp léegi mu léegi xolool bi waaw léegi ginnaaw bu sélectionné nag ay mbir yoo xam ne ay euh, nekkul baas ci tasawuf ay nit ko jagoo wax ko. tolo até dal na sen ko ñen yar dal na sen ko ñen ñenn ñi sax dañ leen ray ya ngi dig dina bu waxe lolu ba nopi nak euh ci xol loola te man ci saase bam ci ti tel na leral ni yu man man yu yi nga xamne dafa nek ay wax yo xamne mom ay nit dafa concerne ci tasawuf wàcc way bu nit wax dara nit dina dal ci kawam lolu mom la yitté moom la ak jëm nek di ko jëma layal xolol boobu ci la bok ya ngi dig ak ak ak euh bu ñëk bi mooy eh, waxdatu jot ñaar yi xalaatuma ak yi mel na ñoom yëpp te bu fekkee ne du baas ba dëgër ba ci tasawuf loolu man teg naa kon dale jëm ma ca dugg waaye jëm ma ko lay li teg ci kon loolu man loolu lay tontu ci loolu jëm ma ca dugg yi ma ko lay li may layal kay mooy yi nga xam ne ni gaa yi dañuy taxaw ci di ko weddi tam sax ci sunna loolu tam te mooy di yi nga xam ne mooy arkaanu assufiya yooyu ci lay wax waaye may ay chatiyaat la yoo xam ne dafa concerné ay nit ñu rek yooyu moom moom lay engagé lu ca dëppoog diine ñu jël lu ci wuteeg diine ñu sànni ci àll ba loolu ko tontu léegi nag bëgg naa nga daanee mayit nag ma yaa yaay boobu ba léegi yaay laaj nag mayit ma bëgg nga nga diglu nag ma laaj la nga tontu tam yitteel nag tomb bi incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk dellu siwaat naa dellu siwaat naa li ma doon laaj muy lu jëm ci waxdatul wujud ak li ñuy wax xulul ak ittihaad eh, yow wax nga ci ne loolu moom àndoo ci indil nga it eh, ay wax yoo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo ko wax waaye nag ci biir loolu loolu dafa téewul eh, man li ma gis tamit lu leer mooy ne mbooloo moo dem dañuy seddalikoo ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu di jéem a topp sharia ak ñeneen ñi ci des nga xam ne dañuy doon ñoo xam dañuy def euh, lu leen neex boo waxee ñoo ne ñoom ci xaqiqa lañu nekk loolu nag euh, dafay dugg ci wàllu pas-pas euh, di rëyal ay doomu aadama jox ba jox leen cëru yàlla ak yu mel ne yooyu kon damay indiwaat benn laaj boo xam ne dama koy laaj muy lu jëm ci werd yi nga xam ne da ngay gis ay nit di ko joxe di wax ba egg ci ne moo gën alquran loolu it ginnaaw waxdatul wujud ak ittihaad ak xulul yow wax nga ne loolu moom waree su ko wax léegi lii it damay laaj ba xam lan moo ci sa xalaat lan moo ci sa xalaat lan nga ciy tontu muy ñi nga xam ne dañoo yor ay wérd yoo xam ne dañuy dem ba ne moo gën alquran loolu daal lu ma jaaxal la ak di joxe ay wérd yoo xam ne bu ko nit ki dee def awraat ak azkar yi nga xam ne moo rot ci sunna moom duutu ko mën a def ndax loola dana jël ci waxtoom loo xam ne du ko mën a boole ak yooya loolu it ba tey bëgg naa cee am ay leeral incha allah kon daal li may laaj ginnaaw buñ jógee ci wàllu pas-pas euh, damay laaj beneen tomb boo xam ne bu ma jaaxal la muy lu mel ne li Cheikh Ahmed Tidiane wax ci salaatul fatihi euh, te ma doon ko laaj fan yii yëpp ma bëggoon yow nga jox ma ci sa xalaat te mooy ne. biñ ko laajee daf ne nuzul la ci ilmul xëy bi la bàyyi ko daldi wax ne am na ay xawaas yu ci ay xusuus yu mu am yoo xam ne yu yéeme la ba mu cay jox dongom ba misaal daf ko wax ne bu fekkonte ne téeméeri junniy giir dafa am mooy téeméeri junni askan askan wu nekk am téeméeri junni giir giir gu nekk am téeméeri junniy góor góor góor yooyu ku ci du nekk dund téeméeri junniy at ñoom ñëpp ñuy julli ci yonante bi julli gu bokkut salaatul faatihi nee na ku wax benn salaatul fatix yi moo ëpp ñooñu ab yool loolu yaakaar naa ne eh, mu ngi ci téere yi eh, téere yi tasawuf yi wëlbatiku ni benn salaatul fatix yi moo gën juróom benn junniy eh, kaamil wala day tolloog juróom benn junniy kaamil wala ay loolu bu ko wax ku ko wax mooy moo nga ne mooy nga ne moo ko gën rek loolu damay laaj ba xam yow ndax dangaa ngaa am amal yooyu ay addil la wala déet boobu ba léegi suñu yaay laaj maa ngi tontu li ma man bëgg naa nag nga fegal ma waa ma aaya nag ma di laaj ngay tontu nag waaw bëgg naa ko. waaw ah, jërëjëf Aliou waaye ah, léegi nag bëgg naa nga fégal nag bii moom bu ma ko tontoo nga may ma nag tekkeeral ni ma mënee am courage ngay laaj may tontu yow it nga am dal nag may ma may may may laaj ngay tontu nag yow it ah, bëgg na nga mu dal ci loolu benn. nga ne léegi lu si biir wax ndax audio yi léeg-léeg damay faral di wax ne moo gàtt moo gën ndax man bu guddee damay xaw a tayal ci di liir sama xaw a jot lu lii dong du sama liggéey dama ko ci boole rek Euh, ku gis ne di joxe wérdu di wax ne moo gën a màgg alxuraan loolu man xëy na yaa ko xamee mën na gis waaye loolu bu amee Sëriñ Tuubaa mii nga xam ne moom day maanaam di ëpp ci luñ jàng ci diine ci moom lañ ko roote man ne suñ jàngum diine ci moom lañ ko jëlee moom day waxal na boppam ne eh, ñi nga xam ne dañuy soofi soofilu di wax ne lañ nekk moo gën a màgg alxuraan loola zuurun da ko askan loolu boo demee ci biir masaali ko jëna ko ci fekk man ma ne loolu saxul alxuraan moo gën a màgg lépp na mooy màddat ku leen waaw léegi lu tee nga jël lu tee nga jël te yow jàpp naa ne moom xaw ma ku koy réer waaye du yomb xam nga sax xam li suñ tuwaa xam waaw kon loolu yow kay léegi bu kee waxee lee jëlal lee sëñ bi wax rek bu fekkee dëgg ngay wut kay sëñ bi nee na lu ku wax lu nee la nga wax nekk moo gën a màgg alxuraan loolu wuti nag dëgg lu tee nga jël jëlal loolu sëñ bi rek léegi na man loolu lay tontu ci loolu man loolu laa ci xam boo ko defee nag léegi euh, nga may ma nag ma ñëw bu fekkee ne jaayis nga ma ñëw ci samay laaj Aliou noppi nga yow lay xar de nga pour nga wane ne ko feneen jàpp te jekk nga pour tontu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam nga ci xam-xam la ñuy wax bu ñuy wax ci xam-xam duñ ne rek diw sàngam moom nangam la ci wax nañ jël loolu mu jeex déedéet ñun li ñuy débat gën naa xóot loolu ndax tasawuf dafa yaatu. Égypte képp boo fa demee am na ku fa doon jàngee koo xam ne nee na moom jamono yam fay nekk rek lu ëpp juróom benn fukki tariqa suuf yi ak ñett xam na ko kon bari na yaatu na. kon suñ lee demaa dañuy wax ci xam-xam boo xam ne ñi ko wax ñoo ko bind mu ne ci ay téere ñuy laaj ba xam loolu nan la demee ñuy laaj ba xam ndax loolu am na ci islaay ci sharia wala déet loolu laa ci jublu waaye jubluwuma ne man damaa gis ku wax lee muy wax wax wax kenn kenn wax rek ci benn côté benn tariqa suufi am ci ko wax lee rek ma daal di jàpp ne loolu war naa tax ña ca des lañ wax kenn bañ koo toppatoo déedéet ndax pas-pas la ku dem ba japp ne li mo gën alquran lola eh, la chaque ne lu graw la lo xamne eh, neexuta layal neexuta layal legi nak lolu motax ma diko laaj léegi yow so amé eh, tontu ci lolu baxna so ci amu tontu comme li nga ma wax ni ma doy lolu rek moy la sëñ ba wax mom yow lolu nga tontu kon baxna ngi lay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bismillah ma ngi lay deglu waaw sama laaj bu njëkk mooy ginnaaw boo dajalee ay mbir yoo xam ne jox nga ma ko da nga gis ne loola dafa wuuteeg diine ci njàngaleenam ma xam ma wax ca la ma xam léegi laaj bu njëkk mooy lan nga rafetlu ci tasawuf sofiya lan nga ci rafetlu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه mawala li lay tontu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa indi woon diine ba ne amul wenn yiw wu des amul wenn yiw wu am lu dul ne jotli naa leen ko amul menn musiba wenn ay wuy am lu dul ne moyandiku naa leen ko diine ji mat bu yàgg kon lépp loo xam ne da doon diine tasawuf ñëw boole ko ci bagaasam loola dama koy rafetlu am maa nag li nga xam ne moo tax mu beru tudd tasawuf doon mbirum boppam loola man lu dul diine ju ñu mën a layal ci alquran ak sunna mënuma koo rafetlu muy lu mel ne ittihaad bi ñu doon wax xulul bi ñu doon wax wahdatul wujud ak turu yàlla yi niñ ko gisee ñoom ak rawsoog badal yooyu ñuy wax nga xam ne dañ cee yu ca baree bari euh, moom day wuute lool lool lool lool lool ak yi nga xam ne moom lañ xamoon ci sunna yooya moom man lu dul diine duma ko jël loo xam ne mënuma ko layal ci alquran ak sunna du ko jël kon diine moom daa rafetoon ba noppi kon kenn mënut a ñëw di ci ñoom ñambaasat dara muy rafet daa mel na gënoon a rafet gën a mat ku ñëw loo ci yokk rek loola da koy ñaawal waaye du ko mën a rafetal loolu daal mooy li nga xam ne man moom laa lay wax amul lenn comme ibnu taymiya gis nga ko lam ca doon wax li nga xam ne moo dëppoo ak alxuraan ak sunna ku ca nekk moo xam da nga ne mu tasawuf nga wax moo xam leneen la daa rafet ndax yàllaa ko rafetlu woon bu yà bu yàgg bu dee lu lu ko génn loola daa ñaaw ndax yàllaa ko ñaawaloon bu yàgg kon lii mooy yëf yi su ko defee nag mu des lan laaj ba xam yeneen yi nga xam ne xëy na suñu xam yëggu ca suñu xam nun yëggu ca ndax lan jot a gëstu gisuñu ko ci ay layam ci alxuraan ak sunna loola dañ koy laaj buñ ko laajee nag ba noppi lu ca waay tontu nu xam ko kon li nga wax nii dama koy rafetlu muy li nga ne ay xulul ak ay ittihaad ak yooyu li nga ci wax rafetlu naa ko bu ko defee tasawuf it lépp loo xam ne nit ki da koy jëf te mu dëppoog alxuraan dëppoog sunna dama koy rafetlu ngir ne loola daa dëppook ak alquran ak sunna waaye duma ma ko rafetlu ngir ne daa dëppoo ak tasawuf kese déedéet du loolu ndax tasawuf dafa wàll si waaye lislaam daa matoon naka jekk rafetoon naka jekk wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu bu dee lu jëm ci wàllu la nga xam ne moom la ñuy am ëllëg loola ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa loola nun suñu yoon néew ci loola yàlla moo cay àddu moo ko xam waaye diin ji ji dund fii ci àdduna mooy diiney jaamu di jaamu yàlla teg ko ci alquran ak sunna diim jëfale nga xam ne mooy faynu lan doon jëf kooku ci loxol yàlla la nekk ñun foofu la ñu tënku moo tax kon du ñu wax ne tasawuf tur wi duñ ne rek tur wi daa bon wala leneen daa bon déedéet aw tur amul solo la muy maanaam ma muy tegtale mooy li am solo ñambaas wa mooy problème ba ñambaas wa mooy problème ba ñambaas wa ca wirde ya ñambaas wa ci ci tudd ay tur yoo xam ne bu ñu melalee ka ñuy tudde loola da xam ne yii melo yàlla rek moo ko jagoo ñambaas wa ci alaxira programme boo xam ne dafay dox boo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la ñuy jàng ci alquran ak sunna yu mel noonu moom bu dee loolaay tasaw moom du ma ko nangu mukk ci adduna sama sama xel xalaatul d'accord ci li may d'accord daal mooy julli yi julli ak woor ak natt azaka ak yàll ji koy rafet ya lislaam rafet lu woon ak yeneen ak yeneen lépp loo xam ne lislaam daf ko rafet lu woon ka koy def moo xam mu tasawuf la moo xam leneen la loola dama koy rafetlu waaye lu ko génn nag ka koy def ak moo xam day woote woo ci sunna moo xam day woote woo ci salafiya moo xam day woote woo wahabit moo xam day woote woo leneen lu mu mën woote woo ginnaaw juyoo na ak alquran ak sunna loola moom du ko jël man te du ko jëlloo kenn nag loola mooy li nga xam ne tey du ma ko d'accord du ko tagg mu kiit nag jërëjëf alimaa ko li lu bees de ci li ma laaj tontuwu wax nga yoo gis tam ñaaw ma nangul la ko am courage tontu la yi nga rafetlu moom laa wax am amma yi ngay wax yëpp yow da ngay laal tuuti delluwaat ci nga xam ne moom ngay gis yoo xam yu ko waxuma loolu sama laaj nangam laa rafetlu nangam laa rafet nangam laa rafetlu laa bëgg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa li ma lay tontu leer na naññe xam nga tasawuf xam naa ko xam boo xamee sunna xam nga sunna li nga xam ne manees na ko layal ci sunna xam nga ko liñ mënta layal ci sunna xam nga ko da yow koy laaj bi li ma la waxoon leer na li ma ñaawlu koy mooy gis nga xulul dama ko cee d'accord ittihaad dama cee d'accord wahdatul wujud dama cee d'accord wird yi ñambas dama cee d'accord kon yeneen ya dëppoo ak sunna loola dama laa leeralal ne la loola dag koo ci te muy jóge ci ab mutasawif lépp lu yàlla rafetlu man dama koy rafetlu mooy lépp lu dëppoog sunna rek loo bëgg nag léegi da bëgg ma ma ma waxal leneen lenn loo luy luy nuróog lu juyoog alquran ak sunna te nga xam ko yow ci tasawuf man booyee boo nga xam ne d'accorduma ci te rafetluwuma ko it nag lépp lu dëppoowut ak alquran dëppoowut ak sunna ma ko léegi nag saa yoo bëggee ma rafet rafetlu ko la nga yow la nga jàpp ne yow da nga dama ko war a rafetlu da ngay dellu ci alxuraan ak sunna indil ma ay adilla yu leer kon loolu mooy li ma lay tontu foofu waaye xam nga bu ma nekkee fi bëgg a lim lu may lim man li sunna xam naa ko am na lu ma ci xam boog li ma ci xam lu juuyoog loola rek man man rafetlu wu ma loola kon la la dëppoog loola dama koy rafetlu léegi nag yow yaa ma war a indil différence kon léegi ne ma léegi nangam kat tasawuf képp moo koy def waaye amul ci lislaam ndax rafetlu nga ko wala déet loolu soo ñëwee ci loolu ma tontu la amma su dul loolu nag dama lay tënkal li ma lay tontu li ma lay tënkal mooy lépp loo xam ne mutasawif da koy def wala keneen wala masamba di ko def wala ma demba ko def te loolu mënu ko layal ci alquran ak sunna man d'accorduma ci loolu du ma ko gëm du ma ca woote tey du ma ko layal fenn la may def kay mooy di laaj ay lay koo xam ne da ngaa jàpp ne yow nga ko layal soo ko mënta layal ma xam ne mënu ko layal loolu mooy li ma lay tontu ndax su ma fi bëggee nekk di lim lu ma lay limal li ma lay limal kay leer na yow bu fekkente ne yaa ngi julli yaa ngi gis mutasawwif ne di julli julli juróom ca jàkka ja loolu dama koy rafetlu dégg nga ak yeneen ak yeneen lépp loo xam ne lu dëppoog alquran la lu dëppoog sunna la luñ mën a layal ci alquran ak sunna la dama koy rafetlu loolu koy leer na yow nag yaay xool ba xam léegi kon tasawuf la ko tax a tudd tasawuf ndax da daa génn l'islam wala déet su génnut l'islam nag dama li ma la wax daa mooy promotion bi gën a rëy mooy lépp luñ dëppoolee lu ñu mën a layal ci alxuraan ak sunna moo xam ci mutasawwif la jóge moo xam ci sunnit la jóge ci ku mën a jóge rafetlu naa ko waaye lépp loo xam ne mëneesu ko caa layal man ma ko leer na léegi lan nga bëgg ma dina limal ah lu muy lim li may li ma mën a lim limal naa la mooy li ma ñaaw ñaawlu limal naa la leneen lu mu mën a doon boo ma ne lii rafet na bu fekkente ne bokk na ci yaa nga xam ne mën naa ko layal ci alxuraan ak sunna dinaa ko rafetlu bu bu ma ko ci mënta layal danaa ko ñaawlu te bala ma la ko bala ma ko ñaawlu dama lay laaj yow ndax ay nit ñuy déglu ba xam yow am ngaw layam déet boo ameew lay woo xam ne wu ma war a nangu la wu leer ci alquran sunna dama la cay fekk si kon bismillah maa ngi lay laaj léegi yow lan nga jàpp ne tasawuf moo ko am waaye sunna amu ko léegi nga ne ma nangam jii de tasawuf moo ko am te sunna amu ko léegi nag dama lay laaj ndax ndax lu nga ko wala déet loolu foofu laa lay. waaw léegi te yow mën a cité tudd leen. ne nangam ji ñu koy def te rafetlu naa ko nangam ji ñu koy def te rafetlu naa ko loolu mënoo ko soo ko mënuñu jàll ci leneen bu ko def ma jàll sama ñaareelu laaj man mënee su ko layal ci alxuraan sunna ko layal ci alxuraan mënee su ko layal wax dëgg loolu kenn kenn du ko rafetlu bi laajuñ la loolu tontul ci laaj bi nangam laa rafetlu nangam laa rafet nangam laa rafetlu loolu lañ wax waaye kole ko foofu rek moom moom taxul may may lay xam ndax man meen la ma la gën a xam loolu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu julli juróom ña koy julli ci mutasawifu rafetlu naa ko ñay tabaxi jàkka rafetlu naa ko ku yor jikko ju rafet rafetlu naa ko kuy joxe sa alal te di ko joxe fa nga ko war a joxe rafetlu naa ko loolu koy leer na man ndax yooya man du rafet lu waaye lan lislaam rafetlu rafet lu léegi jàllal boo jàllee ma jàll boo jàllee rek ma jàll waaw bu dee li ma ñaawlu moom mënuma koo lim ndax bari na li may ñaawlu mooy lépp lu ma mënta layal rek. xiyaamul layli ci ponk la ko rafetlu nga ko. su ko defee nag yooyu ma rafetlu rafetlu wu ma ko ngir ne tasawuf moo tax mu rafet fi man déedéet lépp loo xam ne dama koy rafetlu dama koy rafetlu ngir ne yàllaa ne loola daa rafet waaye lépp lu may ñaawlu it du ma ko ñaawlu ngir ne man maa ko seet rek analyser mu ñaaw fi man ma ne daa ñaaw déedéet dégg nga ko kon lépp loo xam ne day différence danga ma li ma lay laaj man boo ma tontoo foofu rek ma ñu mën a jàll mooy. léegi tasawuf ndax danga may siteel ay jëf yoo xam ne yoo xam ne dañ koo am di ko jëf te di ko tudde ay jaamu yàlla te loola boo demee ci alquran doo ko fa fekk boo demee ci sunna doo ko fa fekk ndax soo ko ca fekkee diine la diine lislaam la bu boobaa ñëpp ko bokk waaye yi nga xam ne nag moom néewul foofa loola kay nga may wax ndax loola ko tax a tudd tasawuf loola boo ko tax a tudd tasawuf nag cee dëgg-dëgg ah ndax lislaam nag dafay newoon nag te xanaa nag loolu gàtt gàtt ëllëgoo war a xam ne lislaam dëddu àdduna ci ponk yi la bokk rafetlu nga ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu qiyaamul layli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko santaane loolu ci diine ji la bokk ba tey ñëwagoo yow ñambaas yi ñambaas yi laa lay laaj xulul léegi xam nga ne ñambaas la d'accord ci ittihaad d'accord ci ndax ñambaas la ak yeneen ak yeneen yooye du ma ci d'accord. waaye yeneen yi ci des yëpp dama laa tënkaloon loo xam ne mënoo fee indi lu bokk lu ñuy rafetlu loo xam ne mënee su ko amal aw lay ci alquran wala sunna bu dee ñiy dund sunna ñoo daq dàq xiyaamu layli fopp waaye loola ñoom def gañ koy def taxut mu rafet waaye yàllaa ko rafetlu woon sunnaa ko rafetlu mu tasawuf bu koy def def gam koy def taxut loola mu loola loola taxut mu rafet de la ko rafetlu mooy yàllaa ko rafet loolu moo moo ne daa baax loolaa tax mu baax kon loolu ndigal la yoo xam ne dañu ko sant nu war koo def wax ma wuuf ci jëmmi boppam différence bi mu am ak islaam ci ay ponk ci ay yëf yooya nga tuddal ma ci yeneen. yow may may laaj yow waroo laaj fii ne dil dil dil rek dil rek man kay ci ci nangam la bokk rek la man bi ma ne rafetlu naa ko rek la bëgg man kay yow del rek yow waroo laaj fii ne bàyyi bàyyi gal rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma jox la benn laaj man laaj bi ma lay laaj mooy tudd yàlla de lu baax la tudd yàlla muy azkar yi nga xam ne dafa ci yonent ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit azkar yu baree bare la chaque ne lu baax la léegi nag am na ay azkar yoo xam ne ay nit a ko tëgg wax ca loo xam ne dañuy wax sax ne moo gën farata yi ndax loolu da bëgg ma ne léegi te ñooñu ci turu tasawuf lañ jàpp ne dañoo dañ leen a bàddil wan leen ay may yoo xam ne dañ leen koo defal ca loola nga xam ne lañ cay amee mënee su koo amee ci def farata yàlla yi wala def sunna si bi sallallahu alaihi wa waye ci yoy ay may la yo xam yalla mo len ko may ndax lolu nga bëgg japp nek na legi lolu man dama ko wara rafet bëgg yonente bi sallallahu alaihi wasallam mm, mm, ci gi nga xam mom mom moy seen mbokk seen man rek yi mu gën man rek loo ci wax fi na laaj ba fi laaj dama koy taajil ba jiss sama dawru ñew fi na sa dawru yow fi na moy tontre wuro laaj fi ni bay ba nga xawa gawtu ndax desena ñaari laaj nak ñaari laaj alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Euh, euh, li ngay laaj nii dama bëgg booy laaj nga nga ngay xoolaat bu baax a baax li ngay wax ndax yii boo ko limee ba pare nag ñu ñëw ci terrain bi xool jeexit yi ndax yow dangay dund may dund fi mu ne am ñoo xam ne dañoo faatu bu yàgg bu fekkee ñoom dañoo ñëw fekk lu lislaam indi woon ñu rafetlu ko ne ca loola ñoom la concerné tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun kon li ëpp solo mooy nañu xool ñiy tuddoo tasawuf li ñuy dox fi mu ne ak wax ak a jëf nañ xool ndax loolu dëppoon na ak alquran wala dëppoon na ak sunna ndax mënees na ko layal wala déet benn ndax bëgg moom bu ñu nee bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man baraana ku ma gis kuy askanoo ci tasawuf moom waxuma la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ka nga topp moom nee nga moo la gënal yàlla kooku nga gën a bëgg ci yàlla kon loolu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo nu war a gënal lépp ak ñëpp ak fépp ginnaaw bëggeel ga di bëgg yàlla kan ca war a teg ci cofeel ak mbëggeel mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg da koy topp topp sunnaam kon loolu moo koy màndargaal kon loolu bu fekkente ne eh, bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci seeni ponk la anamu ah man de yaakaar naa ne képp ku bëgg sunna bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola ci diine la bokk yonente bi sallallahu alayhi balaa kenn mën a am ngëm gu mat danga koy da gënal sa bopp gënal la say waajur gënal la say doom gënal la nit ñëpp loolu moom lu leer la loolu diinee ko indi woon ba léegi indi la góoma loo ma war a laaj li ma li ma war a laaj mooy yu bees yi nga xam ne tasawuf kese moo ko am yooyu ci nga may laaj ba xam bëgg naa ba xam xam lan la. sama laajum ñaari mooy ci biir tasawuf ci biir Sénégal señal yaa ngi erseré da nga bàyyi ma eggal sama laaj yi tasawuf ci biir Sénégal yan injaasaat nga gis ne def nañ ko ci. ci biir Sénégal gi yan indias sa réalisation yi ñu ci def ñoom ci biir Sénégal yoo xam man nga ca teg sa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Abdoul Ahad comme dangaa dese ay laaj dangaa war a seet yi nga xam ne jàpp nga ne yi moom gisoo ko ci gisoo ko ci lislaam ci tasawuf kese ñoo ko am ndax bu dee danoo bokk doon ay jullit li nga xam ne lislaam la moom loolu nun ñëpp a ko bokkale nun ñoo ko bokkale kon fi coow li nekk mooy ci ñàmbaas wi te ñambaas woowu ñi nga xam ne ñooy askanoo ci tasawuf ñambaas wi moo leen gën a moom moo leen gënal fop li des ci li nga xam ne mooy mbubbum lislaam mi mbubbum lislaam mi ñambaas wi nga xam ne moom la ci tasawuf indi loolaa gën a rëy fi ñoom fuuf li nga xam ne mooy mbubb mi baraana tey mbooloo moo xam ne julli teguñu ko fenn dem ci jàkka ja teguñu ko fenn te ñambaas wañ leen ñambaasal ca fañ mbokk moom yitteel na leen yitteel goo xam ne lu ne jaral na leen kon yooya ci nga may laaj waaye boo ma dee laaj loo xam ne diine diine la lislaam ko santaane loola la ma la cay tontu mooy li ma la tënkaloon ndax li ma la tënkaloon ba léegi mënoo koo génne dama ne la lépp loo xam ne nit koy def wala mu di ko wax wala mu fas ko tam dëppoog alquran ak sunna loolu man ak moom moo xam ko kooka mutasawif la moo xam lu mën a doon dégg nga waaye lépp loo xam ne dafa juuyoog moom ci pas-pas ci jaamu yàlla ci jëflante ci yowmal qiyaam ak lañ cee war a fas ak yëpp lu ca juuyoog loola rek na xam ne loola man d'accorduma ci ànduma ci rafetluwuma ko loolu koy tënk la bu leer boo xam ne mënoo maa cabaxal benn laaj boo xam ne mën naa génn. ah déedéet man nag kuy ko da ngaa war a da nga ma war a laaj nangam la ma neex laay laaj da nga tànn la la neex nga di ma ko laaj tontul te diglu tuglu son yi te tontu sëñ bi ndax waxtu waxtu géew yi ñi ngi koy nodd tam dañoo war a julli yi bi yow rek la xaar noppi nañ ci juyooyo fi ni koy mu xalafaat yi ngay wax ay mu ci yow man noppi naa ci man koy yi nga rafet rafetlu ci la nekk ba léegi rek ñu xaw a gaaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh injaazaat yi ngay wax mooy yan na leer bépp injaazaat boo xam ne dañ ko def boo xam ne ko santaane woon loola kay dañ koy rafetlu loola dañ koy rafetlu dégg ko injaazaat yi taxawal daaray alquran injaazaat yi taxawal daaray xam-xam injaazaat yi tabax ay jàkka loolu kan moo koy ñaawlu loolu kan moo koy ñaawlu li la waxoon ba léegi génn googu de waaw li nga li la waxoon ba léegi génn googu te dafa am lu mat a bàyyi xel mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama képp mooy maasuum ci xeet wi moom rek mooy maasuum moom rek moo amul ay njuumte léegi nag bu fekkee nit ki dafa dem moom ba àgg foo xam ne ki mu topp wala li mu gëm day jàpp ne benn njuumte amu ci lu ca juyoo euh, lu ñu mën a layal ci alquran wala ci sunna sax day jàpp ne alquran ak sunna moo niwul ci yoon loolu lay jàpp ndax lam koy jàppee mooy ñamu yar formé leen ñooña loola ab noon lañ koy jàppee ñi ngi koy xeex guddi ak bëccëg di ko wax ci rajo yi di ko wax ci média yi di ko dugal ci internet bi démb rek maa ngi déglu benn son boo xam ne waa ki ko doon def dafa wax ne léegi boo amee ab noon muy ak salafiya mooy seen noon léegi ba noppi nga di ko may occasion ci occasion ci ci sa biir ngay am ay ay ay njuumte yoo xam ne dañ cay jot loolu day doon lu ñu lu ñu mën a utiliser ci xeex la xoolal jooju wax ak salafiya nga xam ne mooy delloo buum ca booy booy ba la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ak saxaabaam delloo ci boo delloo ko delloo ko ca nga wëlbatiku àtt na taxaw yow ne léegi mu tasawufu ni seen noon mooy mooy mooy mooy ñi nga xam ne mooy ak sala mooy li nga xam ne mooy ak salafiya te moom ci histoire islam ca démb ba léegi boo xoolee lu mel noonu ngay dégg ci langage yi Abdul Ahad delloosil sa xel te xam ne noo bokkoon di dund xamante nañ bu baax a baax dégg nga ko lépp loo xam ne lislaam da koo rafetlu ak ku ko mën a jëf dama koy rafetlu lépp loo xam ne islaam rafetlu wu ko ak ku ko mën a jëf duma ko rafetlu kenn ku ne na sa responsabilité toll ci doomu aadama yi boo taxawee ca loola ci delloo nit ñi ci yàlla dama koy rafetlu waaye na sa responsabilité toll ci eh, doomu aadama yi bu fekkee da nga caa profité di ca défendre say idée la nga bëgg waaye doo xool ñi ngi ci dëgg wala néew ñi ci dëgg loola mënu ma koo rafetlu lii laa lay wax. sëñ bi kii moom sëñ bi dana waat mënatoon sama laaj rek la rafet jëm ci ya ngay ñaawlu man fii waxuma li ngay ñaawlu bu dee lii donc kay taxu may laaj la ñun. waxuñu lii ngay lii ngay wax yëpp yow daal sëñ bi man kon yow rafet lu ko dara ci tasawuf rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam nga da ngaa bëgg a génne débat bi fi nga xam ne fi la newoon ndax débat bi fi mu nekk mooy yow ma jox la ay laaj yoo xam ne dama ko gis ci tasawuf may laaj ndax amal nga ko lay ci diine wala déet loolu mooy laaj bi. waaye fi mu ne yow ko xereñ nga ci dëwyee débat waaye nag da nga xam ne dama la doon yoxal waaye nan dellu siwaat ci kaw débat bi dama ne la layalal layalal yii nga xam ne ay njuumte la laaj naa la ci ñett yoo xam ne mënoo ko layal wax nga ca lu leer loola rafetlu naa ko ma dese yeneen yu bari yu ma la bëgg a laaj nga bëgg a jeexal temps bi nag ci lan ci léegi li ma rafetlu li la rafet lu li ma rafetlu kay mooy diine l'islam diine lislaam laa lu de rafetlu ma ko ngir tasawuf rafetlu ma ko ngir keneen wala ma samba wala ma demba diine lislaam jooju lu ca tege ci sunna laay rafetlu de waaye loo xam dañ koy tuddee lislaam ba noppi te dëppoowut ak sunna loolu du ma ko rafetlu lii koy xalaas jeex na léegi nañ nañ dellu ci li nga xam ne mooy laaj yi yi nga xam ne moo concerné nit ñi tey muy réer gu metti gi nga xam ne ñi ngi koy réer ak ruur mu metti mi nga xam ne nit ñaa ngi koy ruur te ba noppi ñu ne dañoo am ab sàmm bu leen di sàmm kooka war leen a yetu sharia sàmmee leen yeneen yat ba ñu wëlbatiku jël sharia def ko muy seenum noon lii ci nga war a wax ci nga war a wax bu fekkente ne xam nga ne loola du yoon nga jóg bis naka tey futteeku fas yéene di yee nit ñi pour ñu bàyyi xel ci jullit ñi ñuy tooñ ndax tooñ ab jullit munta weesu nga taxaw di wax ne di wax ci yàlla ba àgg ci nga àgg ci ne diwa ma gënal yàlla loolu boo ko waxee tooñ nga jullit yi te nga ne ab jullit nga di wax di wax ba àgg ci lu toll ne aj màkka ña koy def nga ne dañoo weddi yàlla loolu ko koy def tooñ nga jullit ñi lu teel. waaw kon nag nit ñi dañ ñëpp xam ne kii li ma koy laaj tontuwu ko pour moom bëggut maanaam xolam dëgg-dëgg dafa dafa xaw a néeg a wax lu rafet ci tasawuf donte wax dëgg yàlla su ma doon kenn dama naa ko moo ko tey xam na lu rafet ci tasawuf maa ko li ixtiraam mais moom iñaan na maanaam daal baat bi ci boppam pour mu génn lu rafet wax ko ci tasawuf da ko mënut. Euh, xam nañ li xew jéggal nañ ko léegi nag ma ñëw nag indi boo xam ne moom ci ahlu sunna la jëm bëgg nga tontu ma ci bu baax a baax. yow de damaa yaakaar ne li ngay wax ni nit ñi lay dégg sax ree jàpp na leen dama ne leen lépp dama ne lépp lu dëppoo ak alxuraan ak sunna rek rafetlu naa ko ka koy def ku mu mën a doon baax na ku mu mën doon rek a rafet na ndax yàllaa ko rafetlu léegi nag lan nga bëggaat injaazaat yi ngay wax mooy lan injaazaat yi mooy lan injaazaat yi dafa am lu mu lëkkalool yam lëkkalool wax ci da ngay tudd injaasaat yi dama nangam ak nangam ak nangam boo ma ko tuddalee ba noppi danaa ne loola da rafet ne waaye nag bu ma nee waaye nag laa cay teg nga indil may lay ay ca tuddal injaasaat yi benn par benn nee naa la julli juróom rafetlu naa ko tabaxi jàkka rafetlu naa ko dégg nga dimbali ñu ñàkk ñi rafetlu naa ko tabax ay jàngu alquran rafetlu naa ko jàngukaay xam-xam tabax lu ko rafetlu naa ko loola nag mu ko koy def moo xam ab mutasawif la moo xam ab sunnit la ku mën a doon ndax loola yàllaa ko santaane loola rafetlu naa ko kon leer na lan nga bëggaat lan nga bëggaat da ngaa bëgg a da bëgg a eh, li ngay li wax mooy lan xanaa ñii ñuy dégg war nañoo mën a ñëw nag attee ñu sax léegi loolu rafet na léegi nag ñëwal ci yeneen yi nga xam ne da la ko tax a tudd tasawuf laa lay wax la tax muy njàm ñàmbaas ya yoo xam ne léegi su ko nit ki dee def ci lislaam nga ne ko foo ko teg mu ne la ci tasawuf laa ko teg wala ci xaqiqa laa ko teg loolu léegi dañoo gis ne ci xilaafa buñ demee ci wàllu ci ci ci wàllu aqida ci wàllu tawxiq eh, firaq yi xilaafa dañ cee dañ cee wuute bi daal bu dee ahlu sunna li ñu jàpp mooy xilaafa hmm, ci masaliham mursala lay dugg masaliham am ci masla am lay dugg dañuy xool ne ka ko gën a yelloo kooko la ñuy bàyyi mu jiite loolu lañ xam ci eh, aqidu ahlu sunna ahlu sunna loolu lañ jàpp dañoo gis na ci ñoo xam ne fi li ñuy tembe dañuy woote woo ahlu sunna wala ni ci lañ bokk di daq tasawuf di ak yëpp te dañoo gis ne ñoom lañuy doxal mooy Eh, maanaam jàppewuñ ko ndax chiens yi ñoo jàppee ne moom nekkul euh, nekkul maslaha am ma lu ñu war a nommer la bu mm, jógee kee toog loole chiens yi jàpp ma gis ñuy dal ci kaw chiens mm, ci ñuy tuddee ahlu sunna malgré que lépp dañ caa boole nag euh, si jël ci seen régime moom mooy nekkul maslaha am maanaam pour ñoom day mel ne rek dañ ko def muy a ahadin ku fi jóge keneen toog laaj na ko sàmm ci suba amu ci tontu ba bu tontu ma yow laa koy laaj. léegi nag bu fekkee ne yow nga wax ay dérapage ci ahlu sunna boobu ba léegi ci ci tasawuf ba léegi ci ahlu sunna yow lan nga gis ci tontu boobu wala bëgg na nga tontu ma tontu ci leer na wax mooy sama laaj bu mujj nii ñu door a ñu ñu a xool nu ñu doxale waaye daal bëgg naa daal nga xamal ba xam xilaafa nan na ko lislaam gisee ci ahlu sunna est-ce que jàppuñ ko mu nekk masla amma bu fekkee ne saxal ne masla amma la lu waral ci ñenn ci ñi nga xam ne dañuy woote wu ahlu sunna déedéet weddi bokk ñi daji tasawuf malgré que loolu lépp euh, xilaafa defi wuñ ko noonu dañ koo jàppee ne ñoom dañoo war ku fi jóge keneen toog loolu am ndax am nga dalilam ci sunna ak fan la tegu Euh, pour wan bu fekke am nga dalilam nga indi amul nak euh, sama tontu ci loolu ma do ko andi. <laughs> alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdullah li nga wax xoromu de kon nak nit ñi nañ ñepp xamne man man nga laqar ci wala ngay wax wala ngay def lenn ba ma rafetlu lu dul islam lu dul islam du sunna munu duma ko rafet ak ko meuna def waye lu ca way def tam depok alquran sunna dama koy rafetlu nga bëggaat lan bu dee ay injaazaat kay li ma ci man li ma ci xam ca la ma rafetlu tudd naa ko yow li nga li nga li ngay wax nii nit ñaa ngi nii dégg boo naan tontuwut nit ñi bu noppee na commentaire yi ñëw ndax tontu naa wala tontuwuma waaw ndax tontu naa wala tontuwuma ñambaas yi nga xam ne moo tax tasawuf tudd tasawuf loola laay laaj ay layam ci alquran ak ci sunna bu ko ci amut mënuma koo rafetlu bu ko ci amee loola alquran ak sunna la woon daa rafetoon njëkk tasawuf di ñëw lii mooy li ma tontu te mooy li. yooyu yëpp sëñ bu sa yoon nekk ay tontu nag tontu mag yëpp bu ci sa yoon nekk moom waaye ñi ñi nga xam ne moom la ngay tontu rek la ñuy diglu moom ñooñu moom man moo nappee moom xam naa ne commentaire yi toftaloo ci loolu xam na ne yow la ñuy favoriser waaye du tee rek nag ñenn dégg ci benn noppi dañ xam ne xew waaye li wér bi wér mooy yow ku dégg li ngay waxee rek da xam ne moom tasawuf moom benn baat bu rafet boo ko mën a waxal moom moom boo koy xanaa daa rëcc rek waaye tontu ci laaj bi laaj bi ma laaj bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abdul Ahad da ngay xoolaat bu baax ndax li ñuy wax wàllu xilaafa buñ ci ñëwee rek ñun fii nañ wax ci la ca lislaam wax buñ ne bàyyee ja jaayanteeku xalifa am na xadis bu ñëw ne saa yuñ jaayanteeg ñaari xalifa nañ rey ba mujj ndax bañ bañ kàddu jullit ñi tàqalikoo léegi nag kon ñaata nit lañ jaayanteel tey ñu doon ay xalifa kenn xamul nu mu toll waaw léegi kon loolu yow fan nga ko bëgg a dugal fan nga ko bëgg a dugal ci layal ko laa lay laaj kon affaire bi yëgguut foofu yëggul fi ngay wax juuyoo gi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi juuyoo ci wàllug ahlu sunna ci wàllug xilaafa ci wàllug lii ci wàllug laa loolu dafa am nun lu nu gën a itteel mooy ay nit ñoo ñuy déglu ñoo xam ne dañu leen a ci wàllug pas-pas agressé leen ci jox leen ay biddaa yoo xam ne dañ koo remplacé ay jaamu yàlla mu rëy fi ñoom bëgg na rëy fi ñoom farata yàlla yi loolu ñu di ko dund ci lañ war a wax. maa ngi ërit sax waaye am sama crédit bi dem sama li ma wax lépp daanaka yàlla na ko yàlla nangul su defal ma ko fi misaani xasanaat mais waroon naa ko sotti feneen fu bokkut fii ndax mbooloo moo xam ne ci par parloo la ñuy wéy par parloo di dévier waxi jàmbur li ñu wax lépp daa ñor leen ci lu may rek côté ba leen ci ñor mais bokkul ci xekk ma day mujj sax boo gi jël keneen ci beneen taraf day lànk sàppi leen ni ngeen waay baax na ngi jërë ngeen jëf xam naa ni mooy doxal ba léegi.